asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Khan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen ñaar fukkeelu vidéo ak ñaar ci cours HTML ak CSS tey jii nag ñu fas yéene euh, wax ak yéen ci li nga xam ni moom la ñuy wax sélecteur simple ci CSS kon chapitre 22 bi loolu lay waxtaane mooy sélecteur CSS yu simple yi dinañ gisandoo kon ay sélecteur CSS yu simple dinañu def ay misaal ay exemple application CSS yu am ay sélecteur ak ay propriété waaye dinañu gis tamit premier sélecteur complexe li ñuy wax sélecteur complexe mooy xaw a gën a euh, compliqué tuuti waaye danañu gis itam lan mooy limitu sélecteur simple yi lan mooy seen ay limite ngir ñu mën a waxtaane loolu lépp nag dañuy daal di jublu ci wàllum pratique bi ngeen gis ne fii am na benn document HTML cours 22 point HTML moo nekk ni waaye am naa benn fichier bu ma tuddee style point CSS li may njëkk a def mooy ñëw créer fii benn balise H1 ñu appliqué ñu ci ay couleur ay style CSS kon xaar ñu ñëw fii ci body bi ñu créé fii benn titre H1 benn titre H1 je suis titre ñu fermer H1 bi slash H1 donc page bi ñu crée moo moo nekk ni pour 22 je suis un titre xaaral ñu xool lu tax mu def ci vert waru cee def waaw ah, kay mi ngi nii donc je suis un titre donc lii maanaam page bi ñu créé ko ñu dem nag ci CSS bi ngir h bi am yuñ ci yokk maanaam suñu fichier CSS moo nekk nii donc ñu def h sélecteur H1 li may njëkk def mooy ma jox ko taille donc pour nga jox ko taille da ngay def font size deux points ma ni ko mu def ko 80 pixels 80 px kon moom lay wax pixel ñu enregistré puisque fichier CSS bi lié nañ ko ak suñu page HTML suñu fichier HTML kon lépp lu ma def ci CSS bi rek dina ko war a appliquer donc h bi la laa bëgg titre bi bu defal ma ko 80 pixels ñu dem xool résultat bi ñu actualiser donc def na ko quatre vingt pixels ñu changer couleur am ci CSS bi dem def color yëpp nag ay sélecteur simple la nga xam dafay cibler directement élément H1 donc color deux points ma def red pour mu colorer ko en rouge ba tey H1 bi mooy sama non sélecteur maa ngi cibler kon balise H1 HTML donc loolu la ñuy wax sélecteur simple dafay cibler benn élément appliquer ay style ci ñu dem actualiser xool est-ce que dina def en rouge gis nga kon appliquer na ko ñu yokkaat encore beneen propriété jox ko valeur ñu def font style ñu def ko italique fii mën nga def italique wala gras wala souligné yooyu yëpp mën nga ko def fii donc ñu enregistré dem actualiser xool ndax dina def texte bi italique nga gis ne texte bi nekk na en italique léegi ñu demaat encore créer beneen sélecteur simple p paragraphe nañ créer paragraphe bi ba noppi ma ñëw fii créer ay paragraphe paragraphe p je suis un paragraphe ñu créé beneen paragraphe kon am naa fii ñaari paragraphe léegi ma ma dem ci sama fichier CSS ngir appliquer ay style ci élément p bi ci HTML donc damay ñëw fii ma créer donc benn sélecteur P su ma créer sélecteur P bi ma changé couleur paragraphe yi kon damay def color deux points ma def par exemple bleu mooy blue en anglais ñu enregistrer dem xool résultat bi donc P couleur bi ma def ko bleu enregistré wu ma woon paragraphe yi donc fiche HTML fichier boo modifié faaw nga enregistré ko ba noppi ngir nga gis modification yi donc su ma actualisé nga gis ne am naa ñaari paragraphe mu def ko en bleu mu naa ko def en gra tamit boobaa damay ñëw fii ma def font tire wel ma def ko bold enregistré boo ñëwee actualiser voilà def na ko en donc lii mooy euh, sélecteur simple yi maanaam sélecteur simple moom dafay cibler benn élément HTML rek daal di koy appliquer la style bu dee H1 H1 bi ngay donc dem appliquer ci moom bu dee paragraphe nga créer sélecteur paragraphe dem appliquer ay euh, ay paragraphe donc euh, ay ay style ci moom kon leneen li ci topp mooy ñu xool kon nan la ñuy def ba defar suñu premier sélecteur bu complexe maanaam bu bu bu gën a compliqué sélecteur HTML yi sélecteur simple léegi lan mooy tax ngay soxla war a créer sélecteur simple par exemple su fekkonte ne fii dama am xaaral ma changé ma ñëw fii ma ni H1 ma def reine fii aussi paragraphe color ma def red gis nga dama ne fii H1 yi couleur bi def ko rouge paragraphe yi aussi couleur bi def ko rouge xam nga ñaari lignes yi répétition de code la mënoon na nekk benn kese donc xaar ñu enregistré xool mu actualiser donc def na lépp rouge donc li mooy nga boole ñaari sélecteurs yi séparé leen par virgule nga xam ne benn rek ngay am au de ñaar ñaar dootoo répété code bi kon kon damay daal di supprimer lii mu ñëw fii de virgule daa def p loolu lu muy tekki mooy sélecteur H1 ak sélecteur P donc couleur yi rouge lay nekk donc day dem ci page HTML bi lépp lu mu gis muy H1 wala muy P donc mu appliqué ci couleur rouge ñu enregistré daal di dem actualiser donc gis nga même résultat nga am donc loolu mooy li nga xamante ni looñ la loolu lañ leen indiloon ci premier sélecteur euh, complexe mooy mooy select mooy bi bi bi bi regroupé ñaari sélecteur wala plusieurs sélecteurs ñu leen di fàttale ne euh, sélecteur simple yi moom li muy consommer ci ressource non seulement du bari te lu yomb boo koy liir day day yomb lool waaye nag terewul ab sélecteur simple yi am nay limite imaginel tey su fekkoon da nga bëgg appliquer ñaari couleur yu wute ci ñaari paragraphe yu wute sélecteur simple moom doolu ko mën a mën a may pour nga def loolu à moins ka nga utiliser deuxième méthode bi ñu leen jàngaloon sànq mooy ci biir balise P bi nga appliquer fa te nee nañ méthode boobu recommandé wuñu leen ko kon lan mooy so nekk solution bu boobaa mooy dañuy daal di wut kon yeneen pexe léegi nag pour contourner loolu dañuy utiliser ñaari atribu HTML mooy attribut ID ak attribut classe kon ñaar yooyu lañ fas yéene gis ci cours bi ñu dëgmal incha allah kon ñu leen di jox daje encore ci beneen vidéo ci seen plateforme Akan Mentor